Sénégal leen jàmm ci la gën a fës ci ëttu yëglekaay yi ñu commencé ko l'observateur mi del siwaat ci xibaar bii nga xamante ni joxe woon na ko niki démb ñeel bor bi nga xamante ni producteur u semence yi ba tey ji état bu Sénégal fayu leen et pourtant démb ci suba gi lu muy teel teel ministre bi ci boppam laa la wax weddi na tuuma yooyu weddi xibaar bi ne l'observateur ci boppam xibaar bi mu joxe laa la wax du dëgg ndax producteurs yi li ñu leen loon ci xaalis càmbar nañ ko ba lu ci ëpp sax fay nañ leen ko ba noppi te niki démb ci altine ji lañ ko waroon a amul benn dërëm boo xam xamante ni état bu Sénégal deseel na ko nag fi mu toll nii producteurs yi yéenekaay bi ne ministre bi de am na droit weddi tuuma yi waaye ba tey jii ñu wax ak yéen producteurs yi ñi nga xam le ne jotaguñ seen xaalis en tout cas li wértéer moo di démb moom docteur Mabouba Diagne nee na état bu Sénégal fay na leen journal bi xëyaat tey ne ministre bi wax ci boppam laa la wax amagul ndax ba jamono jii ñu wax ak yéen am na producteurs yoo xam ne fukki dërëm jotaguñ ko ci état bu Sénégal coowal bor bi nga xamante ni état bu Sénégal gii war na koo semence yi mbaa du yàq campagne distribution wu semence bi lii nag fi mu moo jar a laajte en tout cas yéenekaay bi nee na waxuma la sax fay nag producteurs yi waaye état Sénégal dette bi nga xamante ni mu ngi ci secteur privé bi toll ci milliards de francs CFA buñ ci jugul dinañu dem ba benn moment am ndaw ñoo xam ne danañ ñàkk seen liggéey yénn ci entreprise nag ñàkk seen personnel ñeneen ñi moom xam naa fii la ñuy jaaree fay liggéey dootuñu ko defati ndax état bi leen war a dooleel fi toll nii mu ngi leen di seetaan bi na jafe-jafe yi nekk ci biir réew mi laa la wax état bu Sénégal gi war lijjanti bokk na ci nag accident yu bari yi nga xamante ni saa yu nu xëyee dégg ñu ne kenn ñàkk na bakkanam wala ñaar ci kaw tali bii bu ci mujj rek moo di démb accident bi am ci VDN bi ñett nit mu jënnañ cee ñàkk seen bakkan Walf Quotidien yokkal ci jafe-jafe sénégalais yi prix denrée alimentaire yi nga xamante ni ba léegi président Bassirou Diomaye Faye jublooguñ ci décision yi sénégalais yi mën a yëg na fi mu toll nii dund gi wàññi nañ ko pourtant le 15 mai bii la ñu waxoon ne néew du doole bu nekk laa la wax dana sentir ne bu dee ceeb wàññi nañu ko bu dee diw wàññi nañu wàññiwuñu ko maanaam daal ci gàttal prix denrée alimentaire yi dinañ ko wàññi lii di test mesure boo xamante ni bu ñu sukkandikoo ci biir yéenekaay bi président Bassirou Diomaye Faye nag daf ko war a réussir lu ko mooy dana nekk échec bu rëy nag ci nguuram ndax askan bi moom ñu ngi toog di xaar ñeneen ñuy toog di xaar yéenekaay bi xamal nañu ne mooy opposition bi nga xam ne kenn déggu leen kenn gisu leen yu bari sax fi mu toll nii defuñ ko ci nguur gi lan moo tax ñu ne tekk tekkaaral ci jamono boo xamante ni dëkk bu nekk mu ngi metti yéenekaay bi ne waxuma yi nga xamante nguur gi nee nañ danañ ko wàññi te ba léegi ko waaye ndaw ñi ba léegi laa la wax ñu ngi dem ca bitim réew jaarale ko ci barsak barsak gi yéenekaay bi diñu xamal ni démb démb ca Cap Manuel am na gaal gu ñu fa jàpp ñaar téeméeri nit ñoo ci nekkoon nag juróom fukk ak ñaar lii gaal gu mujj la rek gu ñu jàpp fan yi yépp gaal yaa ngi dem laa la wax ca bitim réew laa La Tribune yéenekaay ne ku wax lii rek wax lee askan bi laa la wax ñoo ngi bëgg a dee ci ay jafe-jafe te boo moytul nag prix alimentaire yi ñuy xaar ñu wàññi ko dana amaat beneen jafe-jafe bu ñëw tegu ci kawam ndax boulanger yi ci bopp boppam laa la wax ñu ngi bëgg yokk prix mburu mi njëg gi ñuy jëndee mburu mi nag boo moytul ci fan yi ñu jëm ñu yokk ci aslëf mburu mi gën a cher ñoom boulanger yi nag li ñu xam ne ci biir yéenekaay bi mooy woyofal gi nga xamante ni jamono ji dafa diis lool ci ñoom bu ci bu Sénégal jugul de danañ yokk mburu mi yéenekaay bi ne Senelec de moom fi mu toll nii lay gi ñu teg nag ci kanamu boulanger yi mooy ci jamonoy tàngaay lañ nekk lii moo tax facture yi daal di yokku ñoom consommateurs yi di xam ne ci biir yéenekaay bi ne ayow 20 000 francs nga daan dugal ci sa compteur woyofal mois d'avril bi ñu génn laa la wax mois de mais léegi ngay fay lu ëpp quarante mille francs presque dafa double laa la wax lañ doon fay ci mois d' lii la ñu mënul comprendre ñoom waa Sénélec jàpp ne prix yi bu yokkee tàngoor bi moo ko waral boulanger yi nag ñoom jàpp ne état bu Sénégal moo ci mën a indi solution ndaxte ñoom seen matériel yokkuwul lañ daan produire tamit yokkuwul kon mënuñoo comprendre seen facture woyofal yii nag di gën di yokk léegi nag na ci état bu Sénégal jël ay mesure am bu facture woyofal yi gënee yokku ñun danañ yokk nag prix mburu mi yéenekaay bi na yokku te gu yoon fa ñu ko seetlu moo commune bu Médina Bamba Fall ak nombre de chef de quartier yi ñuy wax ne dafa yokku ca vilam ba lii tax na yéeni bi duñu xamal ne boo maytul danañu fa envoyé ab délégation spéciale ngir ñu lëj mbët doxalinu maire bii di Bamba Fall l'info yéeni ki ne woon tekk-tekkaaral kenn gisu ko kenn dégg ko gannaaw élection présidentielle yi ba léegi si du kenn ku dul candidat wu Benno Bokk Yaakaar bi di Amadou Ba ba élection présidentielle yi jeexee lañ ko gën a gis ndekete mu ngi woon ca bitim réew yéeni kaay bi ne moom Amadou Ba nit ki démb nag la dugg ci Sénégal ñu accueillir ko ful bu rëy ca biir AIBD moom Amadou Ba nag fi mu toll nii ñaari problème la am bokk na ci problème mu partiam te moo di APR ni ñu koy xeexee pour écarter ko nu muy fexee ba résister wala mu jël yoonu boppam fekk na fi tamit beneen situation te mooy mu assumer nag statut chef de l'opposition bii nga xamante ne ni li mu jël deuxième ci élection présidentielle yi moo ko ko jox est-ce que nag dina jël responsabilité am opposé wu ak gouvernement bu Bassirou Diomaye Faye moo jar a laajte direct news ne en tout cas lu moo koy jik moom miin ne ndax yéenekaay bi xamal nañu ne ñaari tali gëmu dëkk nag ragal du fa dëkk moom Amadou Ba ci boppam moo ñu xamal ni xeexkat dëgg la woon ba muy nekk ndaw jikko jooju nag moo koy ji bu bëggee am dara ci langue politique bi surtout nag ci jamono ji nga xamante ne ni kuréel ga mu bokk mooy APR kilifa ga ca boppam moo ngi koy xeex Macky Sall bëggul lu dul effacer fi mu toll ni Amadou Ba nan lay fexe nag ba daal di exister politiquement nu muy jàkkaarloog tamit gouvernement wu Bassirou Diomaye Faye bii yéenekaay bi na ci ne su bëggee am avenir mu ba gagné statut chef institution bii nga xam ne moom la yore jël yoonu boppam nag taxawal kuréelu boppam enquête yéenekaay ne ci jamono jooju day fekk na politiquement libéraux yi ñu ngi waxtaan ci suuf yéenekaay bi di ñu xamal ni jamono ji ñu naan ana opposition bi ana opposition bi libéraux yeeg démocrates yi fi mu toll nii ñu ngi waxtaan de ndax bu ñu sukkandikoo ci Moussa Diakhaté bokk ci bokk gis-gis nee ci fan yi ñu génn rek lu tolloog ñeent fukki kuréel ak juróom ñeent yoo xamante ni ñii ay libéraux lañu ñii ay démocrates toog nañu waxtaan ci seen biir ngir booloo ndax ñoo bokk benn famille waxtaan wala bokkoon waa PDS ca waxtaan wala ñu bokkoon bokk gis-gis ca waxtaan wala ñu bokkoon LDR yeesal ca waxtaan wala ñu bokkoon UCS ca waxtaan wa ñu bokkoon ak yeneen i organisation politique la ñu namm nag moo di def alliance bu rëy nag ci opposition bi mbaadu dañuy waajal nag élection législative yi ñu jëm Sud Quotidien daal nee na BRT bi moom dana commencé daw te niki àllarba ak suba ji ci la fas yéene commencé daw ci Ndakaaru Njaay yéenekaay bi def taxaw seetlu ci suñu BRT bii nga xam ne depuis ñeenti weer ba ko ba noppi dafa nekkoon phase de test phase de test boo xamante ni def nañ ko ci juróom-ñeenti weer BRT bii ne dana am fi toll nii fukki gaar ak ñeent yoo xamante ni dana fonctionné donte ñaar fukk ak ñett la prévoir woon cérémonie bii nag ni ki suba lay am ci mercredi bi ci kanamu ministre bi di El Malick Ndiaye l'exclusif yéen kaay moom def taxaw seetlu ci passation de service bi nga xam ne war na am ci diggante général Moussa Fall moom mi fas gënoon a jege ñoom ñoo jël seen temps ne dañuy tagg général Moussa Fall yéenekaay bi nag ñoo ngi fiy fàttali président Macky bam naan général Moussa Fall booy xool soldaar dëgg bu yóbboo nga joxoñ ko xool bi ci boppam laa la wax moo bëgg réew mi déggoon nañ fi tamit Maïmouna Ndour Faye patron de presse la muy xamle ne général Moussa Fall mii référence la ci jeunesse bi ndax bëgg gi mu bëgg réewam Serigne Modou Boussa Dieng chef religieux la déggoon nañ ko fi muy wax ne général Moussa Fall bu dee doom ju baax dañ koy ko bu dul woon la wax réew mi dugg ci guuta ngi xam ne ci biir yéenekaay bi ne général Moussa Fall républicain la bu dul woon ak moom laa la wax opposition bi comme pouvoir bi dinañ fi dégg ay musiba mbaba kumba moom moo sauvé opposant yi sauvé waale tamit pouvoir bi ne ku ci nekk nag mu ngay seedeel général Moussa Fall la mu xam ci moom nag ci jikkoom ñi mu moderniser gendarmerie ñenn ci gestion tamit tëj nañ fi ay agent de te doxalinam tam am na ñoo xam ne rafet la wuñu ko yoor yoor bi nekk doxalinam rafetul kay weesuwul nag maire bu Saly Portugal bii Anglais ci gestion atum 2012 jàpp 2016 ndégete sëñ bi xaalisu mairie ba yépp laa la wax daf ko doon gonflé ci juróomi at rek laa la wax moom Ousmane Gueye consommé na lu tolloog 319 542 litres gasoil maanaam lu ëpp 221 millions de francs CFA gasoil kase laa lay wax nii de yéenekaay bi ne 2012 moom maire bi ci boppam laa la wax ci benn pick-up kase consommé na lu ëpp millions de francs CFA mu consommé lu ëpp millions de francs CFA ci gasoil ci benn pick-up kase mu consommé lu ëpp 44 millions de francs CFA ci ñaari pick-up 2015 Thiès mu consommé ci gasoil lu ëpp 54 millions de francs CFA ci ñetti pick-up kase 2016 nag moom maire bu Saly Portugal bii di Ousmane Gueye consommé ci gasoil lu ëpp 63 de francs CFA ci ñeenti pick-up lii tax yéenekaay bi taxaw ci gestion ne li wér te wóor boo moytul dana wuy yoon 24 heures yéenekaay moom dalal porte-parole gouvernement bi di Moustapha Sarré muy la ne sénégalais yi bu yóbboo seen xel dal ku ñu fi épinglé laa la wax ba jébbal ak yoon yoon bu décidé ne daf lay poursuivre na la wóor wóor yàlla da nga wuy ji yoon amul kenn nag kenn koo xamante ni danañ ko ci baal moom ministre bi di xam la ci biir yéenekaay bi ne état bu Sénégal nag leen war dinañ ko def jébbal li ci des yoon liñ leen mën a garantir daal mooy état moom du dugal ci dossier yi loxoom le point actu ne yoon wi nga xamante ni président Bassirou Diomaye Faye jël na ko xawal ko ba ñu mën a topp nag ñenn ñi nga xamante ni ñoom ñoo luubal alalu askan bi yéenekaay bi xamal nañu ne mooy pôle judiciaire et financier moo nar a remplacer na CREI yi bi a topp bi may doole te képp koo xamante ni xam nga ab sàcc di nga ko mën a boole ji kooku ñuy jiiñ sàcc nag danañ ko may 48 heures ngir mu mën a indi ay justification ci lii ñu koy tuumaal doole gi mu nar am tamit ci OFNAC ak ci yenn corps de contrôle yi yérekaay bi dellusiwaat na ci ne pôle judiciaire bii nag moo nar a remplacer yi ñu nar cee topp nag képp koo xamante ne ni sàcc nga alalu askan bi wala nga sàcc suufug askan bi foofu nga nar a demee nag layoo ji Mimi Touré moom di xam la ci biir yérekaay bi ne man daal bu ma sañoon ñu am benn procureur ne mooy financier bi lii laay xaar ci nguurug Bassirou Diomaye Faye libération yéenekaay ne li ñuy xaar ci gouvernement Bassirou Diomaye Faye kay bari ndax scandale yi mu ngi mel ne tulleeg màlle agent yi ci wax dañ daan jël seen salaire di ko jox maire ba diggante 2015 jàpp 2017 Cour des comptes ci boppam ni mel ne yoo xamante ne ni weeru yàlla sàkk ñu kuppati gi seen salaire de jébbal ko maire bi ci boppam tuuma yi ne mel nag donte maire bi ci boppam laa la wax weddi na ko waaye bu ñu sukkandikoo ci benn ancien régisseur mu ngi wuyoo ci turu Boubacar Diakhaté ndax dañ ko tudd ci biir dossier bi moom ci boppam dëgg na ne xaalisu agent yi ci maire bi la doon jëm directement moom maire bi nga xamante ni mooy Aminata Kanté ñu faloon ko depuis juillet 2014 dem na jàkkaarloog waa Cour des comptes ndil leen ay justification yu leer ci tuuma yi ne donte nag li ñuy wax dëgg la am na ay agent yoo xamante ni dañuy tegg ci seen payoor di ko jox maire bi waaye nag jëf yi ni mel dama ko fa fekk nekkul loo xamante ni man maa ko initié beneen scandale yéenekaay bi dellusiwaat na ci mu ngi ca duwaanu Kolda rapportu Cour des comptes bii ko génnee ne diggante 2015 laa la wax jàpp 2018 maire ba ay mbuxum yu bëri la doon def ay maguy yoo xam ne lam ca namoon leen kese la mu di détourner xaalis dem na laa la wax bay utiliser benn boutiquier boo xam ne daraan gañee ci marché yi bu appel d'offre amee pour maire bi ci boppam laa la wax gañee ci xaalis say fexe ba boutiquier bi ci boppam gañee ci marché bi boutiquier bi nag mu ngi wax ci biir yéenekaay bi ne lu wértiwur daal moo di xaalis boobu ma doon gañee donte fraude la waaye maire bi ci boppam moo ko doon jël yéenekaay bi xamal nañ na ay denrées alimentaires ñu ko daan jébbal ñoo xam ne existe sax defuñu ko ko maire ba def na ko laa la wax ci commune bu Kolda tabaski 2017 rek fanweeri xar la ñu jëndoon doon ko jébbal nag askan wi nga xam ne amuñu doole waaye ba ñu demee ci liste bi ay responsable Benno Bokk Yaakaar lañ fa fekk ay leader laa la wax ay leaderu coalition bu Benno Bokk Yaakaar ñoom lañ doon jox ay xar ñu am tabaski bu neex <laughs> réew mi billaahi faw ñu gii yàlla baax na mbokk yi continuer di abonné TV tey gën a bàyyi xel télévision bi ngir ñu gën a mën a mottali seen yaakaar ñu yendoog jàmm ba subaak jàmm incha allah Voilà.